waral mu taqaarab samaw naaru góor te ràmbal ko njaabal ba daarul alim ne man moo di saaw fas du mooy saa ndigal du gàntal ma yit maaka naw ay pexeem bu saaxel mi dee jax ba may bëgga jooru mooy njëkka teewaata ku yërmandeem bu saa doole ba may waaja góor ca moom lay jawal man mu jox may kaleem ki lay mu taqaarab waraat naa ko tey te ràmbal ko man àgg daarul alim fa pencum sëriñ abdurahmaan ma tey falaay soose daa man jëlaat saa di jax man samam xel te bindaati way ma fas yéene ñëw tagg sayxul xadiim dañuy sax di sargal sëriñ bàmba mi ne moo war ci ñun kon bu leen toog ne xiim ka ñu noof laay ci tey ak ëllëg njukkal koog di war maar ko nañ leen ko jéem ne moo tax ñu am jàmmi fii ak feneen ki lay seexu naa bàmba lii jër tamim kalal der ba kàbbar ca biir géej ga far amul maas ku ñuy tudd bàmbaala tiim te moom dendandoom mësta am dootu am du maasum ñëwee ak ñi des fii di jéem ñëwam géey li tax diine ji daldi ñoŋ te moo siggalaat alxuraanul karim ña njëkkoon fi ñoom dañ ko daan sàggane sëriñ bàmba ñëw aar ko kii moo ma yéem joxaat ko cëram daan ko dëkkal ca kaw da koy tagg naan yaa kitaabal karim te moom mooy ki yeesal sunna si yónneenam ba tax tey ñu tal jaamu buur bi ñu moom te daan dëkk tagg ak di way suñu yoneen di xam ko wax mustafa ay jikkoom borom bee ko cër musta am dendandoo karaamam la feeñal ci mbindum loxoom xasiidaam yi xam ngeen ne moo dàqlem njariñ lam ca def moo ko rëy bul di juum dañuy dëkk jàng ak di sellal ko tey dëkke aar ko warmaal ko day indi koom sëriñ bàmba lennam du neen mësta am mbindam mii da cee lëm lu bët mun tëtiim ku koy jàng sellal ko num man di mel ci ak mbon balaa yàgg soppi jikkoom mu jub tey jubal baax du ñeetaane it ci tey ak ëllëg yaa di raw say moroom sëriñ bàmba mii kenn amul ak fayam na buur dolli koo sotti xéewal yu woom mbaxat moo di way wii te sàkkooti ñaan sëriñ Muntaxa aw fanam gudd moom mu ànd ak wér ak wérle buur yàlla yàlla na aaral ñu Seex Muntaxa al karim salaatan salaaman alal Mustafa maal aali feek asama oo ñu tiim salaatan salaaman alal Mustafa maal aali feek asama oo ñu tiim